askan bi tey ñu ngi ànd ak pédiatrie bii day xam Pikine Nord léegi nag ñoonu yabal ñoom it yabaloon nañ ay bàjjanu gox ñu fekk si leen seen kër nuyu si leen di leen yëgal pour wàllu moustiquaire yi laaj nañ tëdduwaay ñaata la ak tëdduwaay ñaata léegi nag konte noonu la àllarba bi lañ war a séddale moustiquaire yi ba le 29 léegi nag bu nu dugg see ñi ngi ñaan yaay yi ubbil nu kër yi ñu waxtaan ak ñoom pour ñu mën a jël si seen i moustiquaire te moustiquaire yi buñ ko jëlee nañ ko fonk di ko takk te képp kuy ñëw nanga nga indaale reçu bi reçu boobu nag moo lay wan pour nga jot sa moustiquaire te ah, tamit booy ñëw na nga indaale mbuusu 100 francs mbuus bi nag li ko waral mooy pour produit bi ñu ci def mu aar ko te bu ñu jëlee moustiquaire yi nañ ko moytu di ko takk si naaj te di ko weer si ker ndax moustiquaire ker la bëgg te bu guddi jotee nañ koy takkal xale yeeg mag ñi pour ñu ciy fanaan mu aar leen si sibbiru ak ay population bi ñu ngi leen di ñaax bu ñu jëlee moustiquaire yi ñu koy takk te bañ koo jël di ko def si suufu rondal yeeg di ko def si lal yi te bañ koo tayee ay vermicelle ki couscous di ko seggee café ndax moustiquaire yoo moo ko tax jóg loolu rek lan leen di ñaan si wàllu moustiquaire mbuus bi bu ngeen gisee ma téye ko mooy wane ni askan bi bu ngeen di ñëw mbuusu 100 francs ngeen di wut pour ñu def si moustiquaire yi mbuus bii nag li ko waral mooy moustiquaire yi pour bu ngeen ko defee pour produit bi ñu si def bañ leen a laal looloo waral mbuus bi ñu wan leen ko askan bi képp kuy ñëw te yoroon sa rusi booy ñëw na nga jëndaale mbuusu ñaar fukk pour muñ see def sa moustiquaire te ngeen fonk ko te di ko takk loolu moo waral ñu wan leen mbuus bi